Ben way bu yo ci tour urbain mom mo xaru pendre bopam ci information yi nga xamanteni jot nañ ko nenañu nga euh, sapeur pompier yi ak gendarme yi euh, comme les ko waxe rek information yi nga jot nañ ko dafa euh, urbain ab gendarme la bo xamanteni ni dafa am lu lettre bi wax li tax donc nag euh, yeneen information yi nga xam ni jot nañ ko nag ni am na kenn koo xamante ni ñoom ñaar ñoom ñoo dëkk ci biir kër gi woo na ko ay 11h ne ko boo ñëwee na nga tijji tiroir yi nga xool li nga xamante ne ni moom laa fa teg mu nekk lu doy waar loo xamante ne ni moom moo xew tey fii ci Tivaouane Peulh ci ajuma ji si quartier bi nga xamante ni mu ngi tudd Sopp Nabi jërë ngeen jëf mbokku internet yi. salaamaaleykum mbokku internet yi li nag ab jëye la boo xamante ne nii dafa xew tey ci ajuma ji fii ci Tivaouane Peulh benn waay bu yoo ci turu urbain nag moom moo xaru daal di pentre boppam ci information yi nga xamante ni nii jot nañu ko nee nañu. li nga xamante ni moom mooy euh, sapeur pompier yi ak gendarme yi ñëw nañu def seen liggéey. comme niñ ko waxé rek information yi nga xam jot nañ ko dafa melni euh mom urbain ab gendarme la bo xamanteni ni dafa am lu ko metti lol ba taxna mu bay fi ab lettre buy wane bi wax li tax mu xaru donc nak yenen information yi nga xam jot nañ ko nak ni amna kenn ko xamanteni ñom ñaar ñom ñoo dëkk ci biir kër gi. woo na ko ay 11h ne ko boo ñëwee na nga tijji tiroir yi nga xool li nga xamante ne ni moom laa fa teg mu nekk lu doy waar loo xamante ne ni moom moo xew tey fii ci Tivaouane Peulh ci ajuma ji si quartier bi nga xamante ni mu ngi tudd Sopp Nabi jërë ngeen jëf mbokku internet yi.